ki man si géej sëriñ bamba man si jéeri cheikh amadou bamba kay jàll jaam ñaangi mu man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ cheikh amadou bamba kay jàll jaam ñaangi ki man si géej sëriñ bamba man si jéeri cheikh amadou bamba kay jàll si géej sëriñ bamba man borom ju may ndakaaru moo de mon wir wir ñibbisi ëndaale yërmande yàlla waa jaange moo man si géej sëriñ bamba sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba kay jàlle jaam ñaange wallahu yansuruni wal xalqu taaba barri wal bahri zaana fin bila darari moo si géej sëriñ Bamba moo si jéeri sëriñ Bamba kay ba moo xam de mam Serigne Bamba xam dellu seem Bamba moo xam de mam Serigne Bamba xam dellu ma be Serigne Serigne Touba Mbacké moo xam de mam Serigne Bamba xam dellu seem Bamba amen jaay ma be Serigne Serigne Touba bu ko waxoon maa ngi dem Serigne Bamba del si ngeen añ bali abdin muridin sadixan waajaange moo man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ bamba kay alle jaam ñaa jangi bamba mal abraari هنا أسير وزن الهداء أنهي هناك أسير من سيجي سيرين بامبا من سيجي سيرين شيخ أحمد بامبا كي جل جام نياجي بعد دون أسير سيرين بامبا ما الأبرار سيرين بامبا هنا أسير وزن الهداء أنهي هناك أسير من سيجي سيرين بامبا من سيجي سيرين شيخ أحمد بامبا كي جل جام Sëriñ Tuuba dem na gànnaar jamalu dooni naar dem na gànnaar jamalu dooni naar jawatul lah bi kitaabil harabi waajaange moo man si géej Sëriñ Bamba moo man si géej Sëriñ Cheikh Amadou Bamba kay jalle jaam ñaange bi signature Sëriñ Bamba fa biroon Ndar Sëriñ Bamba te xawliyal laa ilaaha illallahu muhammad lañ yónnee man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ cheikh ahmadu bamba kay am soxna jaara am jàng tagg naa la way la war naa yam nu baaxe man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ cheikh Cheikh Ahmadou Bamba maam soxna jaara xam jañ tagg naa la way la war nu baaxe Sëriñ Tuubaa Mbàkke moo man Sëriñ Bamba man si Sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba kay moom du fi jóg sëñ am du laat Sëriñ Bamba Sëriñ Tuubaa moom la ñu ci sa kër yi Serigne Saliou moo man ci géej Serigne Bamba man ci géej Serigne Cheikh Ahmadou Bamba tey jàll jaam ko bindoon kanimanul Serigne Bamba de kafaane Yàlla Serigne Bamba baxi mama tasamada mbër mi moo man ci géej Serigne Bamba man ci géej Serigne Cheikh Ahmadou Bamba kay kani manul Serigne Bamba kafaani al baaxi ma maat sarmada Serigne du ma mbër mi mu man si géej Serigne Bamba man si jéeri Serigne Cheikh Ahmadou Bamba kay ko bindoo wan sababu xaybati ana laaraara na naa la min nu jaawa nakuna caafi am li xami waa nakuna ana fi daw mi moo man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ seex ahmadu bamba kay jàlle jaar am man neena sababu xabati ana laaraara na naa la minnu jaawa akuna caafi am li xami waa nakuna xaadim man fi daw mi moo man si géej sëriñ bamba man si jéeri sëriñ seex ahmadu bamba kay دريتو باني زبمو خيبتي عنا العرار ننال منه جواد أكون شافيا لخمي ونكون عالما في الدوم ومن سيكي سيرين بامبا من سيجيري سيرين شيخ أحمدو بامبا كي جل جامعي ومن سيكي سيرين بامبا من سيجيري سيرين شيخ أحمدو بامبا كي جل جامعي Cheikh Ahmadou Bamba kay jàll jaam Xadim Rasul aanu nam kay jàll jaam ñaar Cheikh Ahmadou Bamba kay jàll jaam